ca jërë ngeen jëf mbokk internet ñu ngi leen di nuyuwaat bu baax a baax di leen jox seen wàcc waaye xibaar bi nga xamante ni jot nañu ko euh, tey ji kii di commissaire Keita jamono ji euh, dañu ko convoqué fële ci division des investigations criminelles euh, ginnaaw bi nga xamante ni jokkoo nañu ak moom directement ñun waa Sénégal 7 jot nañu ko laaj nag lan mooy motifu boobu les convocation moom nee na xamagu ko juste dafa xëy ñu woo ko daal di koy wax ne dikk daf la soxla mu daal di leen di laaj ban heure ngeen ma soxla ci la mais fi nga xamante ne moom mooy dëkk ngir mën a wuy ji boobu boobule convocation moom nag eh, bi ñu jotee eh, sekk ak moom laaj laaj nañ ko exactement est-ce que jàppoon ni eh, sortie bi nga xam ne defoon nga ko récemment looloo waral convocation bi mu ne moom loolu mën a guccee addu tant que demul fi nga xamante ne moom mooy division des investigations criminelles ngir mën a xam rek lan mooy illay convocation boobu moom mu ne di commissaire Keita ginnaaw bi ñu déggantee par téléphone ak waa Sénégal seet ci bu mu jokkoo bi xamle na ne li nga xamante ne nii moom moom la mën a wax sénégalais mooy euh, bu ko ko woon teel a publier pour nit ñi mun koo gis foog ne dafay victimiser wu waaye aussi euh, bi muy dugg dig dara jotu ko te dina dem wuy ji ñu déglu ko leneen lu am nag moom dina communiqué incha allah loolu moo nekkoon information bi nga xamante ni euh, jot nañu ko jot léegi léegi ci moom dinañ ci dellu ci waat d'ici la portez-vous bien jërë ngeen jëf. lépp looy soxla te muy jugee Màkk te muy jugee Dubaay nga xam ne moom moo di Saloum Jide 48 rue Fleuris